bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati alkiram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 dellu siwaat naag yéen ci seen émission bi ñu tuddee waxtaani koor te seen mbokk oustaz Alioune mbay fas yéene cee feggoog yéen incha allahu ba waxtu wi jot ginnaaw loola nag ngi dollee ñaan jàmm ci réew mi ak réew ka wër di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na dollee faj aaju yi teggi tiis saafara jàngoro yi te jéggale bakkaar yi yàlla na yàlla gën a xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàqu yeggul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla yàlla lu nu ñàkkit yàlla na noom yàlla yàlla na yàlla gën a teel boppam yàlla na yàlla gën a aaral boppam bi jaay si lu wujudi wa alami shuhud yàlla na yàlla boole ci jaamam yi mu gërëm yàlla na yàlla boole ci jaamam yi mu sob yal na yàlla boolañ ci jaamam yi mu toppul dara dara dara dara bi jaay si wujudi wa alami shuhud ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mi ngeen mooy borom yërmande di borom njëggal di borom barke tudde boppam karim tudde boppam naafi tudde boppam mugni melokaan yooyu yëpp moom rek moo ko yayoo moom dong moo ni mel keneen melu ni yàlla na yokk barke ci Sénégal yokk fi naataange yàlla na fi piccum jàmm rekk naaw njortu yi li ñuy njortu yëpp yàlla bu mu am yàlla na nu yàlla téel boppam yàlla ñu ngi lay ñaan nga téel ñu sa bopp bi rahmatika yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin di lay ñaan it suñu way dawee suñuy way jur suñu baay yaag suñu yaay yaag suñu maam yaag suñu maamaati maam ya yow yàlla yàlla nga jëflante ñoom ci yërmande yàlla nga leen jéggal yàlla nga leen dugal ci àjjana yi gën a kawe yàlla boo leen topp dara dara dara dara defal leen ko defal nu ko ñun te yàlla na àpp soroyantoo loolu weesoo ñu doon lay ñaan ci coronavirus muy feebar boo xam ni yéen ñépp kenn umpaletu ko ngir ni muy wàllantee ci askan wi ni muy yokkoo te la ci yéeme nag moom xamul baadoo la xamul buur xamul kilifa xamul góor xamul jigéen moom day wàll rek di yokku askan maa ngi koy wàllante muy gën di yokku kenn mënu ci dara ba léegi tam kenn trouvé gul benn vaccin li ci gën a yéeme nag te tiit la ci mooy ñun suñu réew demoon nañu ba jàpp ne war nañ ko mën a wër ndomb ndax bu dee dañu dem ba kaa contact yi wàññeeku ñu koy kar léeg nga dégg ko ci penku dëkk bi léeg nga dégg ko ci biir ndakaaru léeg nga dégg ko fu mu gën a sore ñu di ko kar di ko yóotu di ko jëli di ko duma ca temps boobu ñu defoon état d'urgence nit ñi toog médecins yi doon góorlu ah nu xëy benn bis rek ñu ni loole ñu doon def di toog bàyyi nañu ko mu mel ni itam doota mën a maîtriser ku ko yor ak ku ko yorul nit ki mën na koo yor jóge gox dem ci gox yóbbu ko fa te médecins yi ay nit dong lañu jumaa it ak influence ak wax yu bare bare bari tax lañu jàppoon ñu bàyyi ko mu mel ne delluwaat nañ ci liberté liñ ci njort nag yàlla bu mu am mooy mu jékki-jékki explosé kenn mëntu koo téye néew nañu doole néew nañu am-am amuñu ay ambulance amuñu ay yu mate amuñu garab gu ko mën a faj bu ñu bàyyee nit ñëpp fu neex waay dem lu neex waay def dugg ci marché yi dem ci jumaa yi dem ci jàkk yi bu nu yàlla yërëmul mu jékki-jékki rek tasaaroo fu nu jëm mbaa la dal Italie du nu dal déedéet yàlla mu am mbaa la dal Espagne du nu dal yàlla mu fi am en tout cas bëggoon daal kilifa gu nu tee bu baax ndax doom boo bañee mu jooy ba doo ko duma dana la jooyloo doom boo bañee mu jooy ba doo ko wax dëgg ëllëg dina la ci barab boo bëgg la génn te doom daa mel nag ñun la ñun askan wi bu fekkee ne ñëpp ku nekk danga bëgg mu bég ku ne xayaa nga ne ko noppil jox ko mbiskit ku ne xayaa nga ne jooy jox bi te kay jooy xamoo ndax la mu ndax moo tooñ wala tooñul booba dana gën a metti responsabilité daal bëggoon nañu nit ki danga koy mat rek mu metti lii moo mën a am mu neex lii moo mën a am mu tàng lii moo mën a am mu metti lii moo mën a am ndax la yàlla waxoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shaawirhum fil amri fa izaa azamta fa tawakkal concerté wul waaye nag booy jël décision wéerul ci man ñu jékki-jékki rek daan ne ah, lañ doon wax yépp wàññi oto yi nañu jël par ñetti nit wàññi kaar yi nañu jox masque yooyu yëpp ñu xëy xëy mel ni lañ ko bàyyi marché yi mel ni jaabaa jongi xoolal dëkk bi ñëpp ñu ngi te feebar baa ngi ci biir nit ñi ñi ci am xel ñëpp seen xel du dal mu mel nag dañuy ñaax suñu bopp ñaax suñu njaboot ak ñi war a ñaax même bu ñu génne woon état d'urgence dina ñépp doxit kenn ku ne yaa doon sa état d'urgence bopp kenn ku ne doonal sa kilifa bopp kenn ku ne doonal sa docteur bopp toogal moytul aarul sàmmul lu yàlla dogal ci yow nga xam ne lii mooy yàlla dogal waaye daal na ñëpp toog jàpp ni man duma ko yóbbu fenn jàpp itam du ma ko jëli fenn loolu jarul sax def ay déclaration ci rajo ak télévision yi waaye ku nekk jàppal ni lii duma ko def di ci gërëm ci yenn jàkk yi nga xam ne ñoom dañ jël nañu seen décision ni même bu président joxe ndigal nañu ubbi jàkk it moom ñoom du ñu ubbi waaw responsable noonu lay mel kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an yi képp kenn ku ne ci yow sàmm nga te kenn ku ci nekk la nga doon sàmm daañu la laaj noo ko doon sàmme <clears throat> ba yoon bi saa sam waxee loolu ba daane la mu jëkk wax dafa ne fal imaamu raain kon imaam mooy sàmm bi jiitu dañu wax imaam rek waaye képp ku jiite rek imaam nga kon président de la république mooy sàmm bi jiitu ci sàmm yi ndax moom moo ne ci bopp réew mi bu dogalee kenn du ne pourquoi ndax sañ-sañam ak prérogative may na ko surtout nag épidémie bu mel ne bii dañu war a fëgg ci taabal ji nag wax li nga xam ne mooy li am nit ñi nañu toog fu ñu jëm awma lu ma lekk awma lu ma jox awma lu ma nangam nangam yooyu yëpp booy déglu yooyu influence li nga war def doo ko def nañu moytu rek bay boonu àndoo moytu rek bu yërmande yàlla ñëwul day li ñu njort su amee dana métti ci ñun ñëpp feebar boo xamante ni contact communautaire la wala nit ki am ko te xamoo fu mu juree te nit ki ka yor di dox ak moom ba ñu xif ba ñu nemiku ko ci moom ñu bëgg a xool nag fan la jaarul waaw bu fekkee doo mel ne man doo toog pemte pemte pemte fu ne nga dem fa bàyyi ko fa fu ne nga dem fa bàyyi ko fa sa morom def noonu kanka wàll dem wàll ko keneen kanka wàll dem wàll ko keneen léegi fan lañu ñu jëm metti na de doy na waar lool nag waaye nag yal na fa yem yal na jeex tàkk yàlla mën nga lépp ah xelit nangu na nii de déconfinement bi baax na ndax jéem a dund ak moom te di ko moytu ndax te mënoo toog te doo liggéey mënoo dund ak mënoo toog te doo liggéey boo liggéey doom loo lekk foo jëlee xaalis foo jële loo dund faaw nga liggéey loolu xel nangu na ko kon ñu ànd ak xel te deme xel te mooy te ndiku déglu xalaatu kër docteur lañ ñu wax ci liy moytu ñu def si suñu képp lay kattan boo liggéeyee nu yàlla fenk la jantam ñu xam ne nii la yàlla fi jeex tàkk. yàlla na ko yàlla néewal doole yàlla na ko yàlla néewal doole bi jaay seydina muhammad sallallahu taala alayhi mbokk yi ñu ngi sóobu woon ak yéen badar dégg ma ne badar sax uxud waxtu wi démb bi ñu tàqalikoog yéen ñu ngi woon ak yéen ci xare uxud diggante badar ak uxut nag du naal naan dem la xaynu xoo génn giiru yahut ñoo nekk ci diggante bi ismun min qabilatil yahut ñooñu aw tur la woo xamante ni ñoom ñoo ko bokkoon ñoo ñoo ko tuddoon te bokkoon ci famille yahut yi dëkkoon Medina ay allié lañu ci waa Xësrëj xasraj ak laws ñu doon giir yi nga xam ñoo leen xeex te bi yonent bi sallallahu alayhi jubale leen tudde leen lan saar waa Qaynuqaa gi ay ali la woon ci famille boobu ba tey tam Ubaadatu nu Saamit ay ali lañu woon ci Qaynuqaa ba tey Qaynuqaa itam ali lañu woon ci Abdullah ibnu Ubay ibnu Zalul naafiq mag boo mën a doon wax Qaynuqa ay tëgg lañu yu riche mën doon wax démb ne la tëgg métier la moo xam ne nii ku ko ku ko yor na nga ko war a yore sàmm ko na nga ko war a sàmmee métier mu barkeel la moo xamante ni ku la gën a tedd doon na ci yor di ko tedd mu yonent Yàlla Daawuda alayhi muy métier tëgg muy métier mu wuude yooyu yëpp ay xeeti la yoo xam ne nii euh, ay nit ñu baax. di ay tànneef ci banu Israil ñoo ko jëkk def wuude doo gis mukk wuude bu banque waaw nga gis rek yor na lu mën a maye yor na lu mu def këram yàlla moo def barke même boo yorul lu bari doo doo tàggoo xaalis bi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne nañu ma dajaleel yahud yi bani Qaynuqa na ngeen ma leen dajaleel ma waxtaan ak ñoom bi leen dajalee ñoom ñépp teew yonent bi sallallahu alayhi ni leen yaa ma'ashara al yahud ihzaru min allahi azza wa jalla yéen giir yahud na ngeen moytu yàlla na ngeen moytu bu baax xam ngeen ni misla ma nazala bi quraysh min an niqma wa aslimu fa innakum qad araftum inni nabiyun mursal na ngeen moytu seen borom moytu seen bopp moytu li dal lu dal waa Quraysh dal leen parce que démb bi ma ànd ak ñoom dégg ngeen sunu kooraakoor ma ñoom xam ngeen ko te bëgguma dal ci seen kaw moo doon ma bëgg ñu sarte wu mën a yéen ngeen sàmm seen bopp moytandiku dëkk bi ak ormaam bu fi kenn taal aw ay bu fi kenn wax lu noo warta wax mu leen qad ariftum xam ngeen ni man mii nag inni nabiyun yàlla man ko ku ñuy deere la mursalun ku yàlla yónni la tajidunahu zalika fi kitaabikum fekk ngeen ko ci seen téere yu jëkk ya waa fi itam yàlla daalante woon la ak yéen mu ba daaneel yahut yi ni ko yaa muhammad innaka tara ana ka qawmik gis nañ daal ni yow dafa mel ne danga ñëw ñoo tollaleeg sa yaafu seeg sa mboq si nit ñee nga dajaloon muy waa Quraysh nga defe ni boo dayee ñun dana mel noonu boo dayee ñun daa ko rëccu de mën nañoo xeex xam nañu ni ñuy xeexe am nañu ngànnaay mën nañoo jam te duñu moy kon nag booy boo nga def ndànk yow moom yaa war a def ndànk mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi jàpp na njàmburam ci ñoom waxu leen dara àddina di dox di dox ba benn bis mu am benn marché bu ñuy wax marché Qaynuqa marché hebdomadaire la li ñu tudde luuma dañu fay jaay yu nekk comme yahud yi ak jullit yi ak arab yi ñoo jaxasoo woon mu am jenn jigéen jullit booba muuraayam wàcc booba muuraay ci lislaam wàcc na jigéen jooj nag dem ca marché ba muur na ma war a muuroo sol solu na mu war a solo comme ni ko lislaam waxe waxoon naa leen ko démb ci laay ja waaye bi mu muuroo ni benn yahut seen ko gis ni ni mu jik ni mu yiwee ak ni mu jekke loolu déranger ko xanaa mu bëgg sabatal islaam mu dem ba fekk fi ndaw si toog di jaan di jënd mu jël mar robb ba kepp ko ci loos wi jël ab kepp kepp ko nga ne ndaw si bu jógee rek daanaka mën naa ne ay awraam li ci féete ginnaaw lépp day génn ndaw si wax ba soxlaam jeex mu jóg di dem rek fu mu romb rek nit ñi xaqaray daanu ci suuf fu mu rombari rek nit ñi dàq xaqaray daanu mujj ndeysaan nekkum seetaan ci marché bi ndaw si mu nee ba rendre compte nañ ci la daanu suuf nañ nag daan fëgg gémminam nag yuuxu xam ne kii toroxal na ko weer na ko génne na ay awraam ci marché bi ndeke bi yahud bi bu muy def loolu am na benn jullit bu ko séen ci la dem attaqué ko nag moom xeex ak moom rey ko comme marché bi marché bi yahud la muy marché ba nu xëy nuqaa ñoom ñëpp ñu lay jóg subbante waaja rey ko waaye comme dañu bëggoon toroxal lislaam wàññi darajey lislaam wàññi dooley lislaam moo tax moom itam mu jóg xeex ba bakkanam des ca loolu bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg na ko nag ah ca la daay takk ay fasam takk ak gawaram dali ni waa Qaynuqaa il faut ñu xeex ak ñoom ndax woowoon naa leen fii wax leen la ma leen wax ñu lànk bañ koo dégg nañ ko war a dégg xanaa nekk ci seen bopp kon nag il faut ñu xeex ak ñun xeex boo xamante ne xeex boo tar lay war a doon loolu tax na sang bi aleyhi salaatu wa takk ay gawaram ànd ak jullit yi encercler dëkk bi waaye comme wax naa li ñoom ay allié la woon ci Abdallah ibnu Ubay ibnu Zalul ak Saad ibnu Ubaada ak waa Xasraj ñoo ñëpp jóg nag waaw ñoom ñëpp jóg di ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaan intervention di ko ñaan intervention di ko sarxu sur nag Ablaay ibnu Ubay bi ma la wax ni naafiq la te xam nga naafiq moom boo ko reyee rey jullit boo ko fi bàyyee bàyyi yéefar bu jullit dee julli mu julli bu dee woor mu woor waaye loolu lislaam yàqule rek naafiq yi ñoo ko yàq yonent saa salaam comme day jóore ñëw Médine mënuñu koy ñaan yeneen intervention yi mu leen koy xañ daan ni kon Abdoulaye ibnu Ubay mu ne mu ko kon nag bàyyi naa leen waaye ànd leen ak ñoom ngeen génn dëkk bi te yàlla bu yàlla barkeel seenu ànd kon xare ba ci topp ginnaaw ba dara mooy banu Qaynuqa xeex jógul waaye négocié nañu ko ba ñoom ñëpp ñu génn jubali nag fële ca yaman fa la mujje ji ngir seenu njubadi ak seenu ndëngte bari nag nag looy seen lislaam nga defee ne lislaam xeex rekk la wala diinay combat la ak noonoo fekk na dañ koy tooñ ñaawteef yii nga xamante ne moom la yahud bi def man nga gis ni jullit yi ñoo ñëw am doole dal ci kaw ñu amul doole fekk na ñoom ba leen yónni bi sallallahu alayhi wasallam wooye wax leen ni yàllaa ma yónni fekk ngeen wax ji ci seen téere ya fekk ngeen ni ca injiil ñu xam ni yonent aaxiru man mi ngi ñëw te man maay nabil muntazar maa yonent bi doon xaar xam ngeen ko lànk gi ngeen lànk nag bu leen neexee ngeen lànk waaye dëkk bii di Medina bu ma ciy gis benn coono coow bu ma fi gis xuloo bu ma gis aw ñaaw téef bu fay tuur deret bu fi kenn njaaloo bu kenn sàcc bu fi kenn kart bu fi kenn di boole ay nit ñu xeex nañu ormal dëkk bi ñu signé ko noir sur blanc sur blanc dem nañu ba ca biir nag seeni njaboot yaruñu leen seeni njaboot ñoo def musiba bii ba tey lii leen def fekk leen ci kon lislaam gàcce ngaalama ba tey mi ngi respecté orma ak àqi doomu aadama balay kombaam ci biir Medina am na beneen yahuud bu bon bu ñaaw jikko tey yées ku ñu wax Kaab ibnu Ashraf Kaab ibnu Ashraf bi yonent bi sallallahu génnee ci xare Badar ñëw yëg ni xare Badar jullit yi ñoo gañe dafa ne loolu mënul nekk ñetti téeméeri nit ak sol ak fukk ak ñett mënuñoo song junni soldaar di leen gañe loolu mën ta nekk di ko diingat naan bu leen gëm li mu wax bu leen ko gëm de xam nga ne ñi waxuñu dëgg mën ta nekk xurees ga ma xam njàmbar ga ma xam te ñoom fàkk tëdd lañu gaynde lañu gar lañu kooku trois cent treize mën leen gañe ba mu demee ba am lu ci leer nañ ñi nag mu yëg ni kon rey nañu Utbat rey nañu shaybatu rey nañu abu jahlin dafa ne ah lii moom duma ko seetaan nag seetaan maa ngi bëgg ëpp nag Muhammad mii ku bàyyi xët mu nàcc du fi amee mu mel ne kon lislaam tëb na dal ciw xal kon des na ko beneen tëbin jóge na Quraysh yi ci ay mbokkam ñëw na Medina waaye Medina dal dalal nañ ko waaye nag am na fi ay noon yu mu dëkkal te àdduna ba mu daj mooy noon bu muus te nuru soppee moo gën a bon boo amee lu baax mu reetaanaan ak yow boo amee lu bon mu mu xaqataay la bàyyi la ak moom te foo ko waree ginnaaw mu teg sa der lu ñaaw ci la commencé moom tamit ci façon boppam di bind ay way yu ñaaw di ko adressé yonent bi sallallahu alayhi wa di influencer jeunesse bi jeunes yi na leen ay góor ngeen kii turam dong moo ko intéressé boppam moo ko ñor waaw ah, wootewul dara dafay am nag léeg-léeg nit nekk ci koñ di góor góorlu di jéem a samp defar xale yi di leen jubbanti di defi daayira maa muy organiser loo xamante ni organisation lislaam la am ay mag yoo xamante ni mag yi maram rapp lañu ci biir koñ ba du ñu samp dara te loo bëgg samp ñu ñu yàq ko bu leen ko topp kii boppam moo ko tax a jóg kii intérêt moo ko tax a jóg nangam nangam nangam am na ci biir nit ñi kaa yu sheref mi ngi dugg ci nii rek di décourager mag ñi di influencer jigéen ñi lépp mu ngi koy def rek pour baatub lislaam bu mu jëm ca kaw di bi nay way ba benn bis rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waaw kan moo ma mën a dimbali ci noonu yàlla bii kan moo ma mën a dimbali ci kii di ma lor ci aw turam ci làmmiñam wu xor làmmiñam wu ñaaw di bind ay wax di sadd ay way jël xale yépp di leen jox xaalis di leen neexal ngir ñu yàq sama der ak di wax ci man lu ñaaw ba mu mel na léegi wax saaga ak wax lu ñaaw ci lislaam ak yonent bi sallallahu sax daf lay may ab salaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan moom ci lii saay-saay bi yamu ci mu doobee ak yàgg mu xëy war fasam dem Makka dem seeti Abu Sufyaan xam nga Makka seen kilifa yépp dee nañu Abu Sufyaan moo fa des léegi mooy kilifa dëkk ba naan ko jógal yaa fi sës taxawal wul toog jógal am leen fayda am leen fulla ak fayda am leen fayda seen bopp seeni maam kenn mu seen a yàpp kenn mus leen jam naanu waaw jibar rek la leen di jaay li mu def du dara tew ko fenn ci njibar dong la taxaw leen temm di wax waxi mbaajam di wax waxi naafiqam lu ne mu dugg ca jógee foofa ñibbi si Medinatul Munawwara di bind ay way yu ñaaw comme ni ma ko waxee léegi amul lu mu yëkkul yonent bi sallallahu alayhi ci lu ñaaw waaye bis nag am na ku ñuy wax muhammad ibnu mas maslamata ak abanaayil abanaayil mi nag ak kaab ibnu ashraf bi wax wax ju bon ji ñoom ñaar ñoo nàmpandoo am na keneen ku ñuy wax saad ibnu ubaada déedéet saad ibnu bishr saad ibnu bishr ak haaris ibnu awf ñii ñoo fexe ba génnee ko këram guddi yóbbu ko fu sori rey ko gas ba mu xóor suul ko nit ñi noppalu mbaam de ŋaax ya jeex waaye yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu déggee lool tam bég na ca lool bég na ca lool nag wax dëgg yàlla xam nga ci biir waxtaan wi ba léegi am na ku ngeen déggul te mooy Abu Lahab Abu Lahab xam nga moom la alquran ca sóortu tabbat yadda abu lahabin wa tabba maa axnaa anhu maaluhu maa kasab sa yaslaa naaran zaata lahabin wa amraatu xammaalatul xatab fii jiidiha hablun min masadin sadaqallaahu l-aziim abu lahab mii amul lu deful yonent bi salaam moo jabaram ummu jamil ñu bañoon yonent bi lañu moom abu lahab mii ba mook mook abdullahi bi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk bàyyi abdul mutalib ba leen jur waaye li naan ku rey say bokk say noon jeex am na fu mu nekkee dëgg keroog ba yàlla ne yoon yàlla ma nag wansur ashirataka al aqrabin waaral sa so sa sa mbokki bopp yi bala la kenn gëm tàmbaleel fii mbay sa tànk keroog ba mu wootee woo ay bàjjanam woo ay baay taxam waa mbokki boppam ñëpp ca kaaba ka ñëpp daje mu ne leen ndax mos naa leen wax loolu dëgg ñu ni ko déedéet moo tax ñu tuddal al amin mos nga ndax xam ngeen ci man ay fen ñu ni ko déedéet ku jub nga ko baax nga mu leen ndax su ma leen woon tey fii ngeen taxaw am na ay fas yu ñëw pour encercler seen dëkk bi pour nangu ko di ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw ndax loo ñu ma sa wax dëgg la nitu dëgg nga mu ne la kon nag tey li tax ma woo leen fii mooy xettali seen bopp ci safara wuy lakk te du fay yàlla may yónni ana rasulullah xaqan wa ana xaatimi nabiina wa imaamul mursalin yàllaa ma yónni ci dëgg maay nekk dernier yónent yi te maa nekk njiitu mboolem ñi yónni woon safara nag bari waa na fu muy takkee fekkem niit moo koy moo koy taal muy leen doon ay ngànj ba ngeen nekk niit muy safara wuy lakk te du fay lii laa leen doon doyee mbokk yi ne tekk ba yàgg ñu ne Abu Lahab tontul ma bokk bàyyi tontul beneen ba des yaay góor ñun ay jigéen lañu waxal Abu Lahab daal ne tekk ba yàgg mu ne ko tabban lak ali haasa daawatuna tabban lak yaa torox yaa toskore yaa perte yaa bon yow yow Muhammad ñun ñi di ay baay amoo loo nuy doyee xanaa di wax naan yàlla la yónni yow bu yàlla moon keneen ku mu yónni yow la yónni wal xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bëgg gis boppam commencé riposte dem ba bëgg a wax suñu borom ne ko déet bul wax kii lu mu bon bon bon sa baay la te soo waxanteeg moom benn wax archive yi bàyyi ka fi boo liggéeyee kuy wax ci diine mën ngaa jàll sa papa baat mbaa nga wax naka sulu noonu te di ko layale lii nga wax tey léegi nag gis nga ñoom dañuy wax sax ak suñuy kilifa di àgg foo xam ne waruñu fa àgg te kilifa yi sax jullit lañu abu jahlin mii wala abu lahab mii moom yéefar la bu bon te teewul yàlla da ko ormaal ba mu yonent bi sallallahu bi muy bëgg a wax suñu moom dana ko bul wax bàyyil ma waxal la ndax bu sa bàyyi saaga nga fayu bu ëllëgee ku bàyyam saaga mu jéem fayu di ko layal ci yow jógal foofu ani tabbat yadaa abi lahabin wa tabba waa muraatul xamaatu xatam tabbat yadaa perte nga nga yadaa bi lahabin lépp loo xamante ne liggéeyu Abu liggéeyoon na ko wa tabba maa agnee mu perte sooyal anayantiir lépp lu mu amoon yàlla gisatul daraam perte na àdduna perte na àllaaxira moom rek déedéet wa amraatuhu moom jabaram ja umu jamil xatab ka nga xam ne moo ay taxas ak i ak ay ordure ay nefray giléem di ko sotti ci yoon wi fi yonent bi sallallahu alayhi jaar ak di gas ay pax pour mu ca yooyu yëpp wa amratuhum jooju umu jabil daan def xablun daañu takk ay buum min masadin ñu bàyyi koo ci safaraw masad xablun min masadin buum bu bàyyi koo ci biir euh, safaraw ñu wax masad saar woowu depuis septième siècle ñaa ngi koy jàng mi ngi nii ci alxuraan ni wetti wettaaral aba jahlin aba lahab mii nag bi ñuy dem aboo jahlin dafa ñëwoon seet si ko mu ni ko man de damaa feebar mënumaa dem waaye nag am naa sama benn waay bu ma yoreel bor bor bu baree bare xam naa narumaa fay ndax yorul lu ma fayee dinaa ko woo su fekkee nangu na dem xeexal ma ci sama tur buñ la reyee bor bi wàcc la buñ la reyul boo ñëwee bor bi wàcc na la ma tegal la ci quatre mille cinq cent te jooje jamono kon bar bar ba réyoon na kooka nangu dem ca xeex ba ñibbisi waaye abu bi ñu déggee ni rey nañu abu jahlin rey nañu utba rey nañu shayba rey nañu kàngam yépp bi ñu ñibbisee ñetti fan lañ ci teg mu am mbas mu ko dugg mbas mu metti mbas moom moo ko rey moom mooy Abu Lahab moom laa naan am na ku ngeen déggul ci wax ba léegi Abu Lahab mii moom la ñetti fan rek lañ te teg mu daal di faatu kon la rey waa Quraysh rey ña demoon ca xeex ba moo leen moo ko rey kon nag dem ca xare teewul taxul de toog ci kër gi tam teewul de ku deewul ci lii rek dee ci le ndax kullu nafsin zaayiqatul mawt bakkan bu ñam dund rek dana dana ñam dee mu mel ni Abu Sufyaan bi Kaab ibnu Ashraf ñëwee ba wax ak moom moom it dégg na li Kaab wax Kaab bàyyi na ko virus mooy virisu jóg day xeex yëngal nañu bopp bi waaye moom Abu Sufyaan bii nag li yëkkoon tax muy xeex bañ lislaam bañ yonent bi bokkul ak abu jalin moom mii li tax mu doon bañ moo doon ni maamam gu ñuy wax moo maamu yonent bi sax ku ñuy wax jëkk ñu daan xëccoo makka ñoo fa nekkoon tey di ay ñaari kàngam comme PS jaraaf ñu mel ni yoon rek waaye fu ñu mus a xëccoo rek maam yonent bi mooy gañe umayata xaashim gañe na ko mu gàddaay dem siri dëkk ji foofa bi xaashim gi naat na abu jahlin taxaw moom yi ba léegi laalul abu jahlin dee na ca màkk ñuy dégg am keneen kuy wax ci bani xaashim naan yonent la mu wóore na kooku bu yonente kooku siiwee moom fa même si fini dootuñu dootuñu laal ci pouvoir bi kon politique moom moo ko taxoon doon xeex pourtant moom mii nag moo jur Muawiya Muawiya wax nañ ni moo posone Asan ca Karbala maanaam ca ca Ashura ba loolu waral Ashura Asan ca la dee woon ndax jabaram la woo ni ko posone sa jëkkër mu dee ma takk la ba pare jox la xaalis bu bari ba mu posone jëkkër ja jëkkër ja dee mu ne ko takk mu ne ko duma la takk yow koy posan sa ci kër kay man du mën a takk dinaa jox xaalis ba ma waxoon yow wàccoo yow waaye takk moom ko es asan moom bu mu génn àddina mu def Useynu Muawiya mii dee bind benn résolution wane ni sama doom Yezid nañu ko fal gaa yépp lànk Yezid mii ba mu toogee jël arme bi toog moo piécé Useynu ca Karbala fexe ba ko kon paa bii neen ko bàyyi xel malgré mujj na tuub noonu sax di dugg nañ ca fatxu Makka mujj naa tuub waaye xeex yépp ci li muy xeex ci lislaam lépp mooy fay bor ak lépp lay bor ndax ay maamam la doon furli ak i baayam ba tey jii tey nag Abu Jahl dee na mooy teg nekk kilifa ak Makka moo fa nekk kon lislaam bu amee doole moom dana folleeku waaye gis nga bi mu tuubee ba tuub ma anticiper leen ko yonent toog na ci biir kaaba gi ci biir jàkkam ji Madina di ba rek abu sufyaan bii toog déglu yoon di ko xool nit ñaa ngi ni tiirim ñëpp dégg ko muy wax ci xel mi nag ndeke wax na ci kaw mu ne man daal man daal man daal doomi ab dalaa ji fan la jaar ba not ma rek man a yogg ci kanamam nii rek man daal lii daal man daal xamul lu ma dal xam ma dafa yaakaaroon ndànk lay wax ndeke ca kaw la ko wax jàkk yépp di ko dégg yónni bi sax dam ñëw téy ci mbaggam ne ka billaahi xalabtu ko billaahi yaa abi sufyaan te yàlla rek laa la laa la noté yàlla rek laa lay wax liggéeyuma la juxuruma la yàlla laa la woo ci yàlla mii tax ma woote yàlla la bind bind ma xam nga kon kii tuumam gi taxoon na abu sufyaan mii nag moo jóg takku ba dëgër alal ji mu rawale woon kër ba mu jógee yaman te waa Màkk yóbbu ko te mu juuyoo woon ak ñoom abu jahl ñoom sayba ak utba ñoom ñëpp dem di xeex yi alal jooju jaayuñu ko dañ ko def fond de fond de de préparation pour xare Uhud dafa jaar di jóg solo ñu leen man alal ji bu ko kenn jaay bu ko kenn lekk nanu ko jëlaat jënd koy ay armes tàggat suñuy soldaar préparé waat ndax Muhammad li mu def suñu bàyyi def ko sunu moroom yeeg sunu màppandoo yi ak sunu maamanti maam yi toroxal leen ca badar rey ñi jàpp ñi dàq ñi gàcce googu suñu ko fayu rek ñu du gor kon na leen taxaw xeex ak moom Abi Sufyaan lii yokkoon tax mu jóg ndax pouvoiram ak toogaayam Abi na am na jabar joo xam ne booba léegi déggagu leen ko muy Hind mii ot ba waxoon naa la umu jamil moo doon jabaru abi abu lahab waaye hind utba bi nga xamante ne moo doon diriger combat bi ca xare badar moom moo leewaatu woon ak xaaris te xaaris jam ko mu jam xaaris ñaari mag lañu woon Hamza ak Ali mu mujj ko jekkali ca mu ba doomam ju jigéen mooy sëy ak Abu Sufyaan bii maire bii nag dañoo rey baayam rey frère muy Walid Walid Aliyun moo ko rey Utbatu mii Xaaris ak Ali Hamza ñoo ko rey loolu taxoon moom mu am lu ko metti lool lool lool ci komba bi mu ngoog moo daan ñuy ñëw wax ci jëkkër ji Abi Sufyaan ni ko xaw ma looy def yow ngay yëgur yugur yi gis nga nag maire bi moom dafa nappoon paa bi rek waaw xaw ma looy def ngay yugur yuguri waaye boo jugur rek ma too góor dama xam looy xool rey nañu sama baay muy otbatu rey nañu sama frère muy walid daq waa Quraysh nangu seen alal adduna bi yëpp di ñu waxtaane dama xam la ngay toog booba léegi ngay toog rek nit di xool lan mooy sa problème maire bi nag dafa weex ma ñamal leen tuuti ci moom mii gi nga maire bi maire maire Hind maire bu am personnalité la barina na saar wu ñëw bari ay yu bari ñëw ci moom mii di di ko di ko di ko bëgge moom Utbatu moo ko jur amoon na jeneen jëkkër ju jiitu Abi Sufyaan bii jëkkër ja mi ngi tuddoon faakiha faakiha ku amoon alal la arab yi dañoo amoon aada bu baax nag doon cedd la ñu woon nag aada bu baax la ñu amoon te ceddo yoon bi saa am lu mu ci wax xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islaam képp ku la gën ca jaayil ga moo la gën ci lislaam cedda du sàcc cedda du daw cedda du miim ceddo du fen digniteem ak ngorom mooy tax bakkanam daan des ci yu bare bare bare bare kere bu mu tuubee te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan nii ah yéen jigéen ñi na ngeen xam kat ni euh, bu ngeen xasee ba dugg ci lislaam dootu leen sàcc dafa daa jóg daay taxaw naa ne ko xal tashriq dootu leen njaaloo dootu leen sàcc mu ne ko xal tas nil xor mu ndax góor dina njaaloo góor ju di ñitte ci deretam dana dem di tëdd ak keneen ku dul borom këram sang bi xool ko bàyyi woon ka xayrukum fil jaahiliyya xayrukum fil islaam cedd day gënoon doon ay cedd yu ñuul kuk bu ñu digg ci lislaam itam ñooy gën a dëgër maire bi dafa am jëkkëram dafa amoon jëkkër ju ñuy wax faakiha moo am alal ju bare bare bare bare waaye aada bu ñu amoon ñoom mooy ku musaa am alal doon nëbbatu comme ñun nu koy defee sunu dëkk bi ñi daan mayee ngi nëbbatoo waaw woykat baa nga woy léegi ko séen rek la muy jëkk a xool mbaa dooma ñaan mbaa dooma wax problème mbaa nangam nangam nangam ñu ci bari tey noonu la mel arab yi nag ku ci xas a yor doo doon nëbbatu dafa am lu ñu tuddee naaru xiraa naaru xiraa aw safara wu ñuy taal la bu guddee làmp bu verte lay doon foo toll di ko séen ñu xam ne safara wule kër goo ko fa dem am na loo lekk am na foo tëdd am na néegu gan daal benn bis hind mii nekk ak jëkkëram ci biir néeg bi ndax néegu borom kër gi ci bunt bi la daan nekk ku ñëw mu gis la boo jaree placé mu placé la boo jaree jox añ mu jox la añ mbaa boo jaree jox reer mu jox la reer benn bis góor gi fàkki génn dem di tuur ndox ci toilette yi bàyyi soxna si biir néeg bi ak gan dugg si bi gan gi dugg see daal ne tàyyi làmp bi daal di gis soxna si sàngu noonu muuru mu ni ah fii kat kon du néegu du néegu célibataire néegu kilifa la di génn bu muy génn tombeeg jëkk ji génn ci toilette yi di génn di ñëw waaye waxu ko dara nuyuwal ak moom te xamul sax ñoom moom kii mooy borom kër gi mu daal juyal moom waxu ko dara mu ñëw nag daal di fëgg jabar ji ni ko ki ma gis mu génn ci néeg bi ku mu doon mu ne ko néeg bi mu ne ko yow waaye dooma soo bàyyi sa façon yaa gën a tey li ma lay wax góor laa gis mu génn ci néeg bi ah wor mu ko yow sa waxi lu ma lay wore mu ne ko góor la ko gis daal di mer ndaw si def kaf mu def ca mu def dëgg mu def kaf mu def dëgg ah daal di koy mere nag ñetti fan waxul ak moom Hind naa di ñëw ci moom ne ko nijaay li nga ma doon wax da doon kaf wala yaa ngi ci sa dëgg mun na ko kafuma ci sama dëgg laa nekk man du ma nekk ak jigéen mooy wor wala nga di ma trahir maa gis góor ci biir néeg bi te yow la doon set Hind ni ko nag kon maa ngi dem sama kër baay ba yëf leer. maa ngi dem sama kër baay ba yi fi leer nu ngi ko ndokk tant demal mu dem kër baayam ba diir bu yàgg faakiha ñëwul waxul dara ba yónnee ci moom ni ko dem leen ci faakiha nga ni ko toogaayu jabaram ci sama kër jaaxal na ma na ñëw létt ma mbaa mu firi ma laaj naa jabaram laaju ma waxuma kooku ni ko dara na ma fay sama alal rek maa ngi moom ñu ñu ñu kiitoo dama ko takk defal ko teraanga ju bare bare bari ceddoo la ay ceddoo la ñu woon dama ko takk jox sama alal moo di ma wor ci biir sëy bi kon nag na ma delloo sama alal ot ba woof euh, hind ni ko lee lii nu loo ci xam mu ne ko bàyyi giñ naa ci laata ak uzza sama jëkkër li mu wax nii du dëgg day fen musuma njaaloo musuma muy tey fasuma ko yéen sama giirug dund moom kay moo am ñaaw njor tam di ma accusé koo xam ne gisuma ko dégguma ko góor gi ni ko nag insistel ci li nga wax góor nga te li ñu teg ci sa der danga koy setal bala ñuy màgg di ko def ci archive yi te ñun ay noble lañu sunu deret dara du ko rax rax waxuma la nag tuuma mu ne ko nag nañ dem ca kaayin ba boo fekk na am na jibar boo xam ne nii avant lislaam doo ñëw jibar dafa dafa walaa baloon mu ko bu demee ca jibar ba ñu waat mu ñu waat fa ak moom su fekkee ni yaa def li ñu lay wax ma fay ko alalam nga dem wuti jëkkër mu wuti jabar bu fekkente nag wo defuloo ko sa digganteeg moom ba abadan yowmal xiyaam dootu leen séqub néeg faakiha dégg ko ni d'accord naa lépp gën rek lëndëm lëndëm na ma fay sama alal man dootuma nekk ak jigéen yu may wor daal di cay insister ah ñu xëy takk fas yi faakiha ànd ak délégation ay mbokkam ay doomi nijaayam doomi bàjjanam ay doomi baayam ñëpp àndandoo ànd ak jigéen ñeeg ñu def délégation ñu dañuy dem ca kaayin ba mu seetal leen kaayin ba nag bu boobaa day mën a seet hind ànd ak baayam ak ay ay doomi baayam ak ay nawleem ñu yor lekk yu doy bu nee ba sonn ñoom ñëpp ñu tekki ñee nekk fële di gaaruwaale ñi nekk fii di gaaruwaale waaw waaw ñun dañuy takk jigéen ji def nangam a nangam ñii daal ñun tam duñu see góor gu fiir nangam nañ sànnentey kàddu daal ñu takk bi nee ba war a àgg ci kaayin bi te mooy jibar bu mag bi nga xam ne moom lu mu wax dëgg la Aysa daal ni yoggu man a man Hind daal ni yoggu daal defatul dindeetul baay bi nag seetlu ko jàpp ci loxoom dem ba sori mbooloo mi ni ko Hind laaj naa la ca dëkk ba laajaat naa la dellu naa la laajaat ni la lii la sa jëkkër wax bu fekkee yaa ko def avuyeel ma fay ko alal mu dem nga dem jàmm ni ñooy boo fekkee defoo ko ñu ñëw ci kaan bi sa wax jooju moo ma indi fii sama naw la yépp ngi ma àndal sama doom bàyyeeg ñépp ñu nga ne may kilifa di góor ñëw nañu nag ba jub dëkk bi ma seel la ngay yogg-yoggi ak lem di layaam-layaami giñ naa ci laata uzza bu may yeggee te kaayin bi lii nga def li ñu wax ni yaa ko def kaayin bi dëggal ko dama lay fetal doo delsi xëy na ko bàpp boo nga dëgg de boobaag léegi nekkatuma daal sama yaram daal xaw na daw mais léegi sama yaram dawit nekkul ni maa def li ñu ma wax xalaatuma ko dama xam ne ki ñu jëm nit la rek mën na juum mën na def erreur loolu rek la sama xel di liggéey moo tax ma xaw a sedd waaye nag la ma la la ñu ma jiiñ defuma ko mu ne ko baax na bu ñu yeggee bala ñu yegg bala mu may seetal dinaa ko nëbbal benn mbir bu ko trouvé ma xam ne man na bu ko trouvé ma xam ne mënul ñu seeti keneen ndax duma la sacrifier gis nga bàyyi bu am am ful la tam day protéger njabootam nit dangay ngay sa doom protéger say ñëpp fii rek ngay gis nit ku jël doomam mayee ko ñuy toroxal doom ji ci guddeeg bëccëg nga léttu dégguma doo ko lijjanti doo ko toppatoo mu toro ba mel ne wu dàll jeex takk amul fu mu jooyee ay soxlaam amul ku ko mën a fajal soxlaam du càmmiñ du bàyyi du doomu bàyyi du doomu bàyyi jiitle du nijaay du kenn yooyu léeg-léeg nga gis ci ay questions yu mel noonu xale yu jigéen yu nekk ci barab di sëy sëy ba métti lool ñu leen di toroxal di leen mal mane lu ñu gis kenn ku leen dimbali ot batu mii lu mu yées yées yéet si mbon nag ndax gëmul woon lislaam te ñu doon xeex Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la bokk gis nga ne mu taxawa doomam ji kon loolu leçon la ci képp ku may sa doom fi barab sa nopp waru faa teggeeku sa bët waru faa teggeeku te war ngay déglu ay jàmbatam la nga ca man nga di ko dimbali ci moyen waaye la nga ca mën tam ci wax nga di ko ci dimbali te di ko ci encouragé tam bi ñëwee ba tekki gan gi ñu ganale leen jox leen ñu lekk ba suur kaan bi ni léegi dangeen di fanaan ba suba bi ñu xëyee suba teel ñu ni dix heures ñu daje ci penc mi ñun ñëpp nañ fi daje waaye ba dafa yëy benn tàndarma ba pare génnee saalu tàndarma bi génnee euh, awraw fas wi waaw génnee ko jël fi saw mi jaar mu saañ fa tàndarma ba xam nga buy saw saw mi du génn mu ne daal lii laa koy nëbbal su ko trouvé ma xam ne kii ngand la ponkal la su ko trouvé nag du ma seetal ne dem ci keneen roof ko fa ñu ñëw monte tribune yi waa dëkk bépp génn kaayin bi génn toog hind toog nii ak baayam ak njabootam jàkkaarloog faakiha mi doon ancien jëkkëram ñépp taxaw kaayin bi jóg def seen façon yooyu xool gauche xool droite teen bu yàgg mu sëgg def ay grimace ba yàgg mu ne teg ba ni kumratun fi tamratin xooxu tàndarma ci mbuñu kow fas dawal nga dindi ko gaaw fas waa ngay bëgg a saw moon saf day bu yàggee day dee góor gi daal di yëkkat loo xam ne ko mën naa def loolu loolu laa la na daal di daw génne saaru tàndarma ba fas door a saw mu ñëw ni ko wóor naa sa xam-xam ba ma koy def yëgoo ko fekke woo ko kon soo trouvé lii kon sa xam-xam na naw naa ko yéen lañ ne yow la déglu jébar ba daal jóg wiil wiil xool gauche xool droit teen gëmm xam nga rek jibarkat yi moom dañu bari feem waaw koo ci koo ci gis télé bi wala ci rajo yi il faut mu ñàng-ñànglu dangereux dangereux xool am na ñoo xam ne di wax lu yow noonu ñëw ma la nga toog Mamadou Pène Mamadou Pène artiste <laughs> maa ngay nuyu de passage mbokk artiste yooyu daan lu ne ak Dembi Fall groupe boobu léeg-léeg ñu ci théâtre yu neex ndeysaan da ngay ree ree ba bëgg a dee waaye jibar bi téen téen téen ba yàgg mu ne ko tuumaa leen fi indi de gaa yi xoolante mu téen téen téen ba mu tuuma góor jigéen la de téen téen téen ba yàgg jëkkër a jabar la de moo ne téen xool ba mu ne ñi tuumalante ñu ngi ci mbooloo mi dafa mel ne ndaw sii ma jàkkaar lool ak góor kii ma jàkkaar lool yéen ñaar yéen a tuumalante de ñu ni waaw ñun ñaara de mu ne waaye sa waaye dangaa juum sa jabar ji ku dul ndeyam ak baayam ak yow mi ko takk musul xam mu woddoo musu koo gis ku baax ngi nii ku juba ngi nii <laughs> rek nag waa kër hind jóg daal fetal yi tërërë tërërë tàcc yi sarxol la yi tëgg tabala yi gileem yi bëmb giléem yi ba mu woy ya jolle xam naa dafa mën a sar xolle raj raj raj raj raj faakiha nag daanu nag ci suuf nag xalanqu ñëw ci tànki hind nag téye ci baaraam yi nag di ko fóon naan ko baal ma àq yaay gor yaay gar danaa la joxal loolu toll na la ma la joxoon te ñu delluwaat hindi na ko ba yowmal qiyaam maag yow ay seng dootuñu tiim suur naa la këll doyal naa la sëkk dootul yow di man di keneen looloo des digganteem muy hind mii fàkkiha nag abi sufiyaan bii koy denc xaritam la woon moo teel yu ne ci moom ni ko tàggoon ak jigéenu garmi tàggoon ak ko baax garmi pire ku am dignité ku am ku am dignité garmi garar bu la ci kenn jëkk demal nga takk ko man jeexal naa ci man a sib na ma ndax sama mbaadoo la waaye yow demal nga takk ko abi sufiyaan mii nag moo ko takk nag jur ci muawiya muawiya moom la ñu jiiñ cinquième xalif waaye gis nga deret am dafa am solo maawe ko baax la ci diine waaye bari na yu bari yoo xamante ne boo demee ci taarix da ngay gis erreur yu bari yoo xamante def na ko surtout nag ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay ay ay Xasan ay Xuseynu ak ni nga xamante noonu la déplacé woon capitale jullit yóbbu ko Syrie ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye nag al ims waajibun imsaaku amma salafa rafet nañu noppi ca yëpp woon ci saxaaba yi te bañ cee eh, delluwaat waaye mbokk yi kon ñu teg suñu baam ci Hind mi ba suba jàmm ba léegi rek ñu ak ci xare Uhud ñu ngi ci waajtaay yi seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi Pape Abdoulaye Dieye moo nekk ci technique bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa